بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين نيجي تملي كسنت يالا سوني بروم سبحانه وتعالى دي جولي تي صلى الله عليه وسلم ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ndokkeel bu baax a baax ci mbir yu bari yoo xam ne tax na ku ay jullit daje ci jamono yi ñu ndokk koy lanteeg seen biir bokk na ci weer wi nga xam ne suñu borom dimbali nañu ñu nekk ci di chef ramadan al mubarak ak bis yi nga xam ne ci lañ toll di bis yu mag di bis yu tedd ngi leen ci ndokkeel di ndokkeel bépp jullit ci àdduna sépp di ñaan suñu borom bépp jaamu yàlla boo xam ne def nañ ko ci suñu borom nangul ko jullit ñëpp incha allah ñu ngi leen di ndokkeel bu baax tamit ci jataay bi nga xam ne jataayu xam-xam la ak ci barab bu tedd bii di barabu jaamukaayu suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi leen ci ndokkeel ci yëpp di ñaan suñu borom defal ñu tawféex ci liñ fas yéene fàttaliku ak yéen te nekk ab bind boo xam ne incha allah wartee fi jullit ñëpp la ci fuñ mën a nekk incha allah ñu ngi ndokkeel daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñoo taxawal liggéey yu am solo yi nga xam ne tasaare xam-xam la leeral islam la waaye tamit jariñ jullit ñëpp la ngi leen ci ndokkeel bu baax di ci jiital al imam Serigne Afia ñaanal ko suñu borom defal ko tawfeex bu baax a baax ak ñi ànd ci liggéey bi ñëpp incha allah comme ni ko mbokk mi leerale léegi nuyoo bi nga xam ne nuyoo na ko ci la ñuy tàmbali tomb bi nga xam ne tudd na ko léegi incha allah ci lañ fas yéene fàttaliku ak yéen fàttaliku gi dafa aju ci mbir moo xam ne heure bi saa yuñ ci tollee bépp jullit am na lu la islam gàll loo xam ne danga ko war a def saa yoo xam ne weer wi weeru koor dem na ba des ay fan yu néew fu ab jullit mën a nekk rek dafa am loo xam ne dañ la koo digal nga war koo def loolee mooy ñaar yim tudd benn bi mooy zakatul fitr muy benn joxe boo xam ne da nga ko war a joxe génne ko ci sa alal wala ci li la suñu borom dénk loolu warteeku bépp jullit la ci waxtu bi nekk nii loolu kon baax na ñu fàttaliku ko bu baax a baax fàttaliku suñu bopp fàttaliku ñëpp ñu bàyyi xel ne luñ mënta ñàkk a def la incha allah beneen bi it mooy beneen warteef boo xam ne ak jaamu yàlla la aju ci ak julli ñu koy tuddee iidul fitr maanaam salaatul iid googu itam ak jaamu yàlla boo xam ne war nañoo xam fàttalikuwaat lenn ci mbir yoo xam ne aju na ci julli googu incha allah yëpp nekk ñaar yoo xam ne suréewul te yàlla suñu borom digal ñu ko ci islam jaaree ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom la yónni ngir mu leeral lépp lu julli ñuy war a def ak lu ñu war a bàyyi kon liñ fas yéene fàttaliku ak yéen mooy ñaari tomb yooyu daanaka boo xoolee mu nekk benn ndax benn bi mooy mooy lëkkaloo ak bi ci des fàttaliku gi incha allah ñu fas yéene ko tënk ci nii ñu ko tëralee mooy tàmbali xamle lan mooy zakatul fitr bañ xam mooy lan bu noppee ñu wax incha allah ci cosaan li ci diine ndax islam buñ ciy wax lépp dañ koy teg ci ak toxal moo tax kon war nañoo xool fan lañ ko jëlee ci diine loolu incha allah danañ ci ñëw lan moo tax mu nekk lu sax ba nga xam ne bépp jullit da nga koy war a def naka la saxe ci alquranul karim naka la saxe ci sunna bu ñëppee danañ ñëw ci incha allah yi njëriñ yi nga xam ne am na ci jaamu yàlla bu màgg bopp ñu koy tuddee xikmatu mashruiya bu ñëppee ñu ñëw ci incha allah nan lay toll ak jaamu yàlla boo xam ne lu ñu war a joxe la dañ koo yamale ci ab lim bu muy toll loolu tamit danañ ci ñëw incha allah mooy tolluwaay danañ ñëw tamit incha allah ci lan lañ koy joxe ci ban xeet ak yan wax moo ci am incha allah danañ ñëw incha allah ci kan moo ko war a joxe islam bépp lum yoonal rek da koy teg ci ay sart ak ñoo xam ne ñoom la koy gàll ak ñoo xam ne ñoom la koy defloo danañ ñëw tamit ci ban heure ndax day jaamu yàlla goo xam ne daa am heure buñ koy def daa am heure boo xam ne nii ci lañ ko war a def danañ ñëw tamit ginnaaw boo bu ñu xamee ki ko war a joxe ak heure bi ñu ko war a joxe kan la ko war a jox wala ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo incha allah danañ ñëw tamit incha allah ci lenn ci li borom xam-xam yi wax ci ab masala boo xam ne xaw naa bari coow ci bunt boobu ngir ñu leeral ci leen tuuti incha allah bu noppee ñu tëje ko tënk boo xam ne moo aju ci bunt boobu ci boppam incha allah jeexale ko nag lu aju ci julli gi ayit ak tënk leen ci àtteem buñ bëggoon a xam lan mooy zakatul fitr mën nañu tënk xamle bi ci njariñam rek maanaam buñ dollee ci borom xam-xam yi di ko xamle ci baat bi ci cosaanam ndax baat bi moom li muy tekki noonu ci kaw te mooy zakatul fitri islam moo ko jëkk a indi loolu toon baat bi nga xam ci biir lo ci biir arab waaye jëmmi zakat rek xamoon nañ ko moom te zakat day firi ak dolli ko baat bi loolu dañ ciy dégg ne sax maanaam nit ki bu fonkee di joxe asaka moo xam asakay alal la wala asaka bi ñuy jàngal fàttali ko tey da lay jural ak dolli ko incha allah ndax baat bi ci luxa day firi loolu day firi tamit ak yokk di firi ak sell naka noonu tamit di firi ak kawe loolu boo ko déggee da ngay xam ne maanaam lu mat a ittiwoo la waaye tamit lu mat a def itte la ngir maanaam taxaw ci bu baax a baax bu ñëwee ci jëmmi zakatul fitri ci boppam mooy lan dañ ñaan ab joxe la wala ab saraxe la boo xam ne dafa am nu muy toll am tamit koo xam ne moo ko war a joxe am nu mu war a toll am ñum ko war a joxeel am ñum ko war a jox waaye naka noonu tamit am heure boo xam ne ci la ko war a joxee noonu lañ koy xamle ci tënk daanaka xamle boobu manis naa wax ne mooy tënk waxtaan wi incha allah ci la ñuy sukkandiku ngir leeral lañ bëgg a fàttaliku ci buntu boobu waaye buñ dalee ci li ko téere yi fiq yi di jàngale ci biir ci tënk dañ naan rek mooy asaka biñ farataal ci jullit yi te li koy sabab mooy bu weeru koor bi di jeex loolu ci tënk mooy zakatul fitr bala xam di wax ne dañuy wax zakatul fitr ngir léeg-léeg ci wax yi dañuy wéer dara jëmale ko ci sabab bi li ñuy tuddee idaf idafatu shay ila sababi comme ni nga xam ne danañ ko def lenn ci barab ba nekk di ko def lenn ci ka ko moom kon asaka la joo xam ne li koy waral mooy boo wooree ba war a dog maanaam ba war a wori ci koor bi moo tax ñuy wax zakatul fitr waaye tamit am na yeneen tur yu bare bari yoo xam ne danañ ko ko faral di tudde doonte baat bi ñu njëkk wax moo gën a siiw am na ñu koy wax zakatul fitra da ci yokk ak taa jublu ci asakay yaram te mooy bindi zakatul abdaan am na tamit ñu koy tuddee zakatul sawm ndax asaka bi asaka la boo xam ne tamit ci koor lañ koy joxe wala bu koor di jeex am ñu koy tudde tamit ak zakatul xaasa bi ramadan dafa bari ay tur am na tamit ñu koy wooyee sadaqatu ramadan ndax moom tamit ab saraxe la boo xam ne ci ramadan lañ koy joxe ala kulli haal baat la boo xam ne ci biir islam lañ koy fekk islam rek moo ko xam loolu nag war nañ cee taxaw di gis ne islam diine la boo xam ne léppam ak rafetal la ak yërmaane ndax boo xoolee lu ëpp ci lu yoonal da ngay gis ne ngir nit ñëpp nekk ci nekk ci dund gu dal moo ko waral mooy diine boo xam ne da ngay gis ne day bëgg kenn du jaaxle day bëgg kenn du ñàkk day bëgg tamit kenn du nekk ci ay jafe-jafe moo tax muy waral ci ñi nga xam ne ñoo am wala ñoo man loo xam ne dañ koy war a génn di ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk man loolu lu war lu war a bàyyi xel bu baax la bokk na ci rafet rafeti islam lan mooy atkat zakatul fitri mooy asaka bi nga xam ne heure bii bu jotee te mooy ñu dem ba weeru koor wi di jeex ñu war a jóge ci ko koor gi asaka boobu nga xam ne bépp jullit la war lan mooy atteem atte bi mooy farata la farata la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko farataal mbooleem téere yëpp boo demee dañ lay wax faradaha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wala ñu ne la bi fardi sunnati ne nañu loolu lañ jëfandikoo wala ñuy wax sax al wujub yëpp benn maanaa bi la li am solo mooy nañ xam ne waajib la lu war la ci bépp jullit buñ delloo ci lenn ci mbindum sëriñ bi da ngay gis ne mu jëfandikoo baat boobu ci ne farata la dañuy gis ci lenn ci téeréem mu wax ne summa zakatul fitri saaxun qad tajib ankum kon lu war la loo xam ne bépp jullit daf ko war a jëfandikoo daf ko war a jëfe kon atte bi mooy lu war la dana ñëwaat insha allahu taala ci bayit boobu nga xam ne sëriñ bi leeral na ci daanaka tënku tomb bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ak yéen insha allahu taala borom xam li ci ëpp nag ay bii lañ jël def ko mu nekk cosaanu zakatul fitr muy asakay muurum koor maanaam muurum koor ay bi lañ jël mu nekk tegtal bi ñu sukkandiku muy qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fa salla buñ xoolee lu ëpp ci ñu jiitu ji dañ daan jël aaya boobu jàppe ko tegtal am na ku ñu wax Omar ibn Abdul Aziz nekkoon benn njiit ci jullit ñi ci ay jamono bu weeru koor di masaan jeex daraan digle di soññee ñu joxe asaka yi boole ci di jàng aaya bi pour nit ñi di ko dégg mu mel ne kon da ci tegtaloo ne aaya bi moo digle loolu am na keneen ku ñu wax Ikrama doon allaama borom xam-xam di firikat moom tamit aaya boobu da ko daan bind daal ci teg daan ne li liñ ci dégg mooy ki nga xam ne day xëy joxe asakaam laataa muy julli ci qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fa salla fa salla mu doog a julli ji nag julli it fekk joxe na asaka ba noppi kooku noonu la daan firee aaya boobu waaye li ci ëpp solo mooy day asaka bu am solo lool boo xam ne njariñam buñ ci doon wax danañ ci guddal ba nga xam ne àq yi sax mën nañ ci bañ agsi tey bu doon tey jullit ñëpp sàmmonte nañ di ko joxe comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane jëmmi asaka ci boppam rek la asaka dafa yàq bi ñuy waxtaane benn la ci waaye am na zakatul maal nga xam ne mooy asaka bi nga xam ne moo aju ci wàllu alal bi nit ki am bii ñuy waxtaane mooy asaka bi nga xam ne moom pour weeru koor buy jeex la nekkee lu war ci bépp jullit boobu rek bu ko ñëpp joxe woon te bu ñu xoolee dañuy gis ne li ëpp ci julli ñi war nañ ko joxe danañ ñëw bu ñëwee ci ki nga xam ne moo ko war a joxe incha allah danañ ci dégg ne ñi ko wut joxe bariwut man nga jàpp ne julli ñi bu ñu doon téeméer lu ëpp juróom-ñetti fukk ci ñoom war nañ kaa joxe te boo xoolee kon la ca des ñoom kon jàpp naa ne kenn ku ñàkk du amat ndax lu ëpp téeméer bu fekkee juróom-ñetti fukk yëpp génne nañ joxe kon ña ko war a jariñoo sax mën naa am danañ ci jariñu ba nga xam ne dana des loolu nag bu ñu ko defoon li muy jur mooy jàmm ju gën a yaatu mooy am ci dëkki dëkk yi waaye tamit sécurité mooy gën a yaatu ndax nit ñi bu fekkante ne maanaam li ñu war a jot jot nañ ko jaaxle gi tamit xaw a wàññiku mën naa am ay tooñ yu baree bari wala ay sàcc yu bari wala ay xeeti yu bari ñu dégg mën naa wàññiku bu baax a baax a baax loolu moom ñu bàyyi ko xel bu baax a baax incha allah. te sax bokk na ci importance am ba tey ak njariñam lenn ci borom xam dañuy wax ne day defar lenn ci li nga xam ne juumoon nga ko ci koor gi ci ay rëcc-rëcc te loolu sax ñu ngi ko jëlee ci xadis bi am na benn borom xam-xam boo xam ne nee ne comme ni sujoodu njuumte sujood bi ñu xam ci julli nga xam ne léeg-léeg nga dolli wala nga wàññi li muy defaree lenn ci ak màng ci julli gi nee ne noonu la zakatul fitri di def ci boo juumee ci koor bi kon loolu rek jar na ku woor ba weer wi di jeex nga ittiwoo ko ndax nit day faral di def ay njuumte léeg-léeg mu mel ne njuumte yi nga defoon ci koor gi ci ay neen ak lenn ci ay rëcc-rëcc wala njuub njuumte yooyu asaka bi boo ko génnee da koy sellal dala ci musal insha allahu taala bu ñu xoolee nag nim saxee ci sunna ndax asaka la joo xam ne sunna moo ko farataal dañuy gis ne mën nañoo tënk ñeenti xadis yoo xam ne mooy boo ci jël rek mu day sëkk maanaam ci sax gim sax ci wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam man sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo jiite woon daan ko def waaye tamit digle ko santaane ko daan ci soññee ci jamono bu nekk xadis bi ci gën a siiw mooy xadisu abdullah ibni omar radiallahu anhuma mu wax ne yent bi salaa sallam farataal na ci jullit ñépp bu weeru koor di jeex ñu joxe asaka incha allah dana ñëw ci asaka boobu ni muy toll incha allah waaye xadis boobu loolu la ci wax yent bi salaa sallam farataal na ci jullit ñépp bu weeru koor bi di jeex ñu joxe asaka daal di wax ci xadis bi ni muy toll wax tamit ñi nga xam ne ñoo ko war a génnee ak ban heure lañ ko war a génnee xadis boobu ab cosaan la ci li ñuy wax nii boobu boo ko jëlee mu nekk bu doy sëkk ak xadisu abdullah ibni abbas radiallahu anhuma moom tamit nga xam ne xadis boobu daf cee leeral ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa farataal ci jullit ñi ñu joxe azaka bu ñuy wori xadis boobu sax da cee leeralaale njariñ bi nga xam ne azaka boobu daf ko am daan ne day sellal ki nga xam ne moo wooroon ci njuumte yi amoon ci koor bi waaye tamit day jëriñ ñi nga xam ne ñooy ñi xaw a ñàkk ak ñi nga xam ne seen doole yaatuwul lool daa ci tegaale sax wax ne képp koo xam ne teel nga koo joxe laataa ngay julli loolu mooy azaka biñ nangu mooy bi nga xam ne moo wér soo bàyyee ba ginnaaw julli nga doo koo joxe nag day nekk ab saraxe waaye azaka bi day daal di nekk loo xam ne du amati niñ ko soxlaa woon dëgg-dëgg ndax it bi dëgg-dëgg mooy dañuy bëgg bis boobu képp koo xam ne dafa xaw a ñàkk du yëg ne moom dafa ñàkk kon yeexe gi tamit wérut beneen xadis muy xadisu abi said alxudri radiallahu anhu moom tamit nee ne ci jamono yonent bi salaa sallam dañ daan génne asaka yi muurum koor ci ay jamono daal di wax ne nangam daraan toll daa nañ ko génne ci ñam sàngam ci ñam sàngam ba xadis bi jeex boobu te boo ko jëlee mu day sëkk ci tegtal buy wane ne lu sax la ci sunna beneen xadis boo xam ne mooy xadisu abdullah ibn amr ibn al as mu ne yonent bi salaa sallam de am na bis dafa yónnee benn mbokk muy woote di yëgle ci dëkk bi parce que bu doon léegi nga ne dañ koy wax ci rajo yi ak ci mbedd yi di yéene di wax ne maanaam bépp jullit na xam ne daa war a joxe azakay muurum koor ala inna zakat al fitri waajibatun ala kulli muslim ana bi sallallahu alayhi wasallam sant benn waay muy wër mbeddi madina yi di ko woote di ko soññee loolu day wane ne kon julli ñi waxtu yi saa yu ñëwee war nañoo fàttali ko waat woote boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam woote woon na ko te doon ci soññee di ko def am na ay njëriñ yoo xam ne buñ ko jëmmaloon muy asaka gi julli ñëpp di ko joxe borom xam ne génn nañ ne dana jur ay njariñ yu bare bare yenn yi ki koy joxe ci boppam lay jariñ yi ki des day jëm ci ki nga xam ne moom lañ koy jox yi ki des di jëm ci ki nga xam ne mooy dëkk bi nga xam ne ci lañ nekk wala société bi ñu dund wala réew bu ñu xoolee ki nga xam ne moo koy joxe bokk na ci li ëpp ci lim lay jariñ yow mooy liñ jëlewoon ci xadis bi léegi mooy njuumte yi nga defoon ci koor gi mu far ko loolu benn la boo xam ne boo génnee asaka bii dala koy jariñ bi gi des mooy dali ubbil buntu ngir nga mën a dimbale way ñàkk yi ak ñi nga xam ne dañoo xaw a néew kàttan loolu bokk na ci li lay dimbale yow kon bunt la bu lay dimbale pour nga mën a def jaam yàlla bu mag boobu bokk na ci tamit dana tax ba famille yi nga xam ne am nañ aajo te amuñ ku leen ko fajal asaka yooyu bu génnee famille yooyu danañ am maanaam lu mën a sakk seen aajo jooju waaye bokk na ci tamit mbégte mu yaatu ci bis boobu ndax day asaka boo xam ne dafa sës rikk ci bisu ayit ci bisu ayit islam day bëgg bis boobu mbégte mi bu mu yem ci ñi nga xam ne ñenn ñi daal di bàyyi ñi des waaye ñëpp dañoo war a maase yëg ne bisu ayit jot na te loolu nag bu ñenn ñi génnewut li ñu war a joxe jox ko ñi ñu ko war a jox kon mbégte mi du matale ñëpp waaye bokk na ci tamit maanaam bunt la pour rafetal te xam ngeen ne bokk yi rafetal mooy li ëpp solo ci ab jullit bu nekkee ci àdduna dalay tàggat ngir nga def al ihsaan rawatina ci sa alal te lépp lu ñu def alal ju ñu yàlla dégg wala lu ñu yàlla may ñu rafetal ci mooy jaamu ci yàlla génn ci liñ ci war a joxe loolu farata la ñu koy bàyyi xel baax te asaka bi di ko ittiwoo bokk na ci lu ñuy dimbali ci loolu waaye bokk na ci lu ñu tuddee ak bëgge nga xam ne bakkan moo koy def nga xam ne léeg-léeg lépp loo am moom day bëgg nga di ko téye doo ko joxe loolu nag da ngaa war a xeex ak loolu ba nga xam ne loolu da nga koy laabal ci sa bakkan asaka bii nag dalay jariñ dalay jariñ ma dalay musal ci jikko boobu nga xam ne nekkul bu gën day laabal sa xol ba nga xam ne doo doon koo xam ne alal mooy nekk li lay jiite waaye yow yaa koy jiite yow yaa koy yilif suñu borom ne ne wa man yuuqa suxa nafsihi fa ulaika humul muflixuun waaye tamit bokk na ci dalay dimbale ci nga sant yàlla sa borom ndax asaka la boo xam ne boo ci taxawee yaa ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ci ay xéewalam bokk na ci yaa ngi koy sant ci dimbale gi mu la dimbale ba nga tàmbali weeru koor wi dem ba di ko jeexal te loolu nag ku ci yàlla dimbale ci loolu war nga ko sant nag ci taxaw ci ndigale bi kon bépp jullit xamal ne bu la yàlla dimbalee nga tàmbali weer wi ba agsi ci cet li am na ak jaamu yàlla boo xam ne war nga kaa def te mooy loo war a génne ci sa alal joxe ko loolu danañ ci ñëw léegi incha allah waaye bu dee ki nga xam ne moo koy jël di ko jariñoo tamit te mooy ki ko aajowoo kooku buñ ko ko joxee bokk na ci njariñ yi muy jur mooy dana tax ba di ko musal ci muy laaj maanaam du soxlawoo di génn di wuti te loolu bokk na ci jubluwaayu islam ba bu bis boobu di ñëw ñenn ñi di génn di dem di wutiwaat ndax loolu day tax ñii nekk ci jàmm ñee nekk ci fitna bokk na ci yenn jàngoro yu xol yi nga xam nit bu ñàkkee wala mu jàpp ne dañ koo seetaan mën naa ne ci moom asaka boobu génnee mën naa musal kooku ci loolu ndax nit bu gisee nit ñëpp ku am moom mu gis ne moom yëpp yi agsiw ci moom mën na kaa jural xolam xaw a yëg mbañeel wala mu yëg jikko yoo xam ne gënul bu ko defee loolu nag asaka yi bu génnee dem ci moom da koy laabal ci loolu kon ki koy jël loolu tamit da koy jariñ ci wàllu defar jikkoom ci wàllu boobu waaye tamit dana tax ba maanaam économique bi day gën a yaatu nañ joxe misaal ne masalan tey bu doon tey waxtu wi ñëw na ñëpp commencé jënd li ñu war a joxe te booy ñi koy joxe ci wàllu li ñu dundee wala ñu joxe ko ci wàllu alal jullit ñëpp joxe ko loolu ku ne xam ne ne maanaam alal bi tasaaroo ci biir dëkk bi la yoo xam ne ñëpp dañ ciy jot kon économie bi tamit da ciy da ciy yëg boppam bu baax a baax kon société bi da ciy jëriñ waaye dana tax ba laaj tamit wala tàllal loxo dañu ci mën a jëlee bu fekkante ne loolu am na incha allah kon loolu bokk na ci njëriñ yi nga xam ne da koy jëriñ société nan lay toll ginnaaw bu ñu xamee acte bi xam lan ci ay njëriñam day mel ne war nañoo fàttaliku nan la war a toll maanaam nan la islam wax ne maanaam noonu la war a toll loolu nag yéen saa salaam daf koo tënkoon ci ab baat bu mu tuddee saa bara xam-xam yi di ko firee ci ñeenti mudd mooy ñeenti loxo waaye ci tënk rek pour mu gën a leer buñ dee buñ ko nattee ci ay kilo mi ngi du sori ñaari kilo ak genn wàll ci li ëpp ci li ñu dundee ci dëkk bi ñaari kilo ak xaaj da nga wax ñaari kilo ak liibar loolu mooy tolluwaayu li nga war a joxe ci asaka danañ ci ñëwaat insha allah taala ci leeral kon loolu mooy miqdaar bi mooy li nga xam ne noonu lay toll moom la jëmm ju nekk war a génne ci waxtu wi joxe ko waaye tamit joxe waa leen ko képp koo xam ne nii maanaam ci soroon lay dund léegi loolu boo koy génne ci ban xeet nga koy génne maanaam ci lan ci lan nga koy natt loolu tamit xadis yi nga xam ne ñëw na ci xadis yi dafa tudd ay xeeti ñam yoo xam ne jamono yooyu moo amoon yoo xam ne jamono yooyu moom lañ daan dunde waaye li ëpp solo ci liñ ci war a xame mooy ci borom xam yëpp wax ko mooy ma dëkk bu nekk la nga xam ne moom la ñuy dunde rek loolee ca lañ koy génne dëkk bu nekk la ëpp ci la ñuy dundee loolee ca la ñuy jëlee maanaam ñaari kilo liibar yooyu am na ñu wax ñaari kilo waaye def ñaari kilo ak liibar moo gën a wóor moo gën a jot tamit moo tax benn borom xam dafa wax ne ginnaaw bu jàngatee xadis boobu wax ne xadis bi tudd na ay ñam yoo xam ne moo amoon ci madina ci jamono yooyu waaye ñam yooyu nag moo fa nekkoon waaye bépp dëkk boo xam ne nii la ëpp ca la ñuy jëfandikoo rek ñam bu mën a doon nañu xam ne ñam woowee ca la ñuy génne asaka moo tax nga gis suñ mag bi wax ko ci benn téeréem min muslimin bi julli aysi def li ëpp ci dundub jamono yi ca lañ koy génne kon loolu gis nga amut fu yem kon jamono bu nekk li ñu dund rek bu dee ba loolu soppi ko waat tamit la ñu dundewaat da lañ koy génn kon loolu daanaka dëkk bu nekk daanaka mën nañoo xool ñoom seen ñam boobu ak doole ñu génn ko ci dana ñëw tamit ci kanam incha allah ci ne mënees na koo xool xayma bi ci alal ñu joxe ko ci incha allah kon ñu jàpp ne kon li muy toll mooy ñaari kilo ak liibar ci li nga xam ne gox bi nga nekk moom lañu jëfandikoo ci ñam loolu moom ngay génne bindal ko sa bopp ak képp koo xam ne maanaam mi ngi ci soroon di dund maanaam képp koo xam ne ab dundam ci yow la war nga xam ne nit ki day wàññi jëmmam ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la yor seen dund nuñ toll rek mu def lim bi noonu insha allah taala daal koy jox ñi nga xam ne ñoo ko yeewoo loolu asak farata la ci bépp jullit ñu bàyyi ko xel bu baax rop ci jamono yi nga xam ne ci lañ nekk ñu taxaw ci ngir jëfe ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon mën naa wax ne nag li ëpp ci dëkk biñ nekk wala réew biñ nekk li ëpp ci lu ñu dundee ceeb defe naa moo ci ëpp moo ci gën a fes kon ñaari kilo ak xaaj ak liibar moom nga ciy jël pour bopp bu nekk pour jëmm ju nekk wala njëg bu ko mën a jar incha allah danañ ñëw léegi incha allah ci lu aju ci loolu kon loolu lu yomba jàppale incha allah kan moo ko war a génne mooy loolu kan la wax loolu tamit daanaka ñi mu war a bari na lool donte ne ñu bari dañuy jàpp ne ñoom génn nañ ci war a bokku ci te dañuy wax ne bépp jullit boo xam ne am nga lu ëpp loo dundal xamal ne war na ci yow nga génne ko bépp jullit boo xam ne am nga loo xam ne ëpp lu sa dund loolu nag jullit bu nekk yaa xool rek sa bopp fii sa fi la yàlla tollale ci loolu loolu nag jàpp na ne kon ñi ko war a génne ci jullit ñi bari nañ ñi ko war a génne ci jullit ñi tamit ñoo ëpp ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax taxaw ci bu baax a baax mu ne kon bépp jullit buñ dee ba nga xam ne weeru koor bi jeex na des benn fan wala ñaari fan wala ñu xëy suba teel ci bisu kore yi na nga gaaw jooxi farata boobu te mooy sarax boobu war a génn wala asaka boobu nga gaaw matale ko ci ni ko suñ borom santaane jaari ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu sax moo ñu yóbbu ci ñu wax heure bi ban heure lañu ko war a jox heure bi dina liñ ci xadis bi xadis dafa wax ne qabla salaat nee ne pour mu baax tudd asaka day nekk qabla salaat mooy njëkk ñuy julli nga ko war a génn ndax loolu dafa am jubluwaay bi ci islaam am mooy bëgg na ñi ko war a jariñoo maanaam ñu jariñoo ko balaa jariñoo ko du wees wala balaa ñu yëg ay firnde ku ne xam ne ne bisu ayit itte yi da ciy bari ak soxla yi ak aajo yi nit ki bu bàyyee ba ginnaaw julli mu yeexe ko njariñ ba taxoon ñu ko doon joxe loolu day mel ne day wees moo tax ñu bëgg bala ngaa julli ji nga joxe ko loolu mooy waxtu wu jóob mooy waxtu yi nga xam ne ci la waree waaye sax def ko laataa lool sax ci benn fan wala ñaari fan ba tey day gën a dagal ngir gën a mën a dimbale ki nga xam ne moo ko war a jariñoo ku ne xam na ne ci jamono yi nekk maanaam nit bu bisu iid jubsee soxla yi da koy wër bu ko defee waxtu woowu nag boo bàyyi ba bis bi jege sax day fekk moom bu doon koy laaj sax day fekk laaj na ba noppi bu doon koy wuti day fekk wuti na ba noppi moo tax boo ko jiitoo ci benn fan du wàññi dara boo ko jiitoo ci ñaari fan tamit du wàññi dara day tax sax nga gën a dimbale ki nga xam ne moom fexe nga ba fegal ko coono yi muy wër wala muy laaj loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax insha allah kan moo ko war a jël dina bu ñu waxee ki ko war a joxe ak ci liñ koy joxee ñi ko war a jël mooy foofu nga xam ne koy wute waaye li gën a dëgër ñu mën koo jàpp mooy ñi nga xam ne dañoo ñàkk te aaju woo ko rek loolu moom luñ mën a xàmmee suñu borom ne woon na siimaahum fi wujuhihim wala taarifuhum bi siimaahum kon ñi ko aajoo te yeyoo ko mooy ñooy ñooy ñi ngi ko war a jox ak ñi ngi ko war a jox ak fuqara wal masakin am na ñu wax ne mbooleem ñu yeyoo asaka rek te suñu borom tudd leen ci alquran mu nekk juróom-ñetti xeet foo ko ci yóbbu baax na waaye tànn ñi nga xam ne ñu ay jëmm yu ñàkk amuñ doole jox leen ko loolu moo gën a dëggal foofu tamit dañuy yóbbu ci ñu wax ci benn masala boo xam ne baax nañu leeral ci lu am solo mooy li nga xam ne ci lañ war a génnee asaka jooju ndax ci aw ñam rek la war a génn wala manis na koo génne ci xaalis wala manis na koo génne ci xiima te mooy xool loo xam ne dana tolloog moom ñu joxe ko ci loolu dafa nekk ay wax yoo xam ne yàgg na depuis bu yàgg-yàgg borom xam-xam yi di ci werante am na ñoo xam ne dañoo jàpp ci ne rek faw ci aw ñam lañ ko mën a joxe ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis bi ay ñam la tudd ñooñu dañoo jëf jëfandikoo rek ci li rot ci xadis bi ndax ne daa tudd ay ñam kon jullit bi mënul durut maanaam jëfandikoo nat pepp wala ceeb wala li muy dunde ndax dañoo wax ne loolu moo rot ci xadis bi wala moo rot ci wax ji waaye am ñeneen ñoo xam ne gis nañ ne manis na ko joxe ci loo xam ne rek mën naa jariñ ki nga xam ne moo koy jël loolu ñu tuddee joxe ko ci xiima bi masalan joxe ko ci xaalis comme ñaari kilo la dañu waxoon léegi ak genn wàll ci ceeb nga xool njëg bi ñooñu nag li ñu wax lu dëgër la loo xam ne nekkul lu bees ndax depuis boo xoolee ci borom xam njëkk yi da nga jël ku mel ne al imaamul Buxaari bokk na ci ñi nga xam ne ànd nañ ci loolu ku mel ne Abu Xanifata ak Sufyaanu Thawri ak ñeneen ñu mag ñoo xam ne ba ci jamono yi nekk nga gis ne lu dëgër la loo xam ne maanaam booy xool jubluwaayu islam te mooy dimbale ku ñàkk loolu da ngay gis ne day boo fekkee dañoo sukkandiku ci lool rek danañ mën a daganal wala danañ mën a wax ne manis na koo génne ci lurut maanaam aw ñam manis naa xool rek loo xam ne nii comme xal ci xaalis ñu génne ko ci te loolu sax mën naa ëpp njariñ ci kiñ koy jox bu doon dañ ko génnee ci ñam bi insha allah loolu nag kon ñu bàyyi xel na kon léegi dagan na kon nit ki ñu xool masalan ñaari kilo ceeb ak genn wàll la lañ war a joxeel jëmm ju nekk wala nga xool loolu ñaata lay jar ci xaalis ñu jàpp loolu ñu xool ñaata lay jar ci xaalis rek dafay nga këlkin ko xool ñaata jëmm nga ko war a joxeel nga xool nga joxe ko ci lu toll noonu insha allah loolu mooy li nga xam ne manis naa jàpp loolu ndax dagan na ñu jox ko say mbokk ndax tey nit ki mën na koo génne daa koy jox koo xam ne mbokkam la loolu tamit dañuy wax ne bu dee mbokk moo xam ne da nga ko war a dundal nga xam ne moom ci sa waa kër la bokk loolu dañ ko mën a jox waaye bu dee ñoo xam ne seenu dund waratu la masalan say rak yu jigéen yoo xam ne dañoo sëyi fa neen te aajo woo ku leen dimbali wala daal mbokk yoo xam ne jege nañ ñooñu mën nga leen koy jox ndax su boobaa sax day nekk ñaari tuyaaba yooyu boole te mooy joxe nga ba noppi amaale yoolu jokk ak mbokk loolu tamit lu dagan la dagan na tamit ba tey biñ koy joxe nga jox bañ koy jox kenn maanaam jox ko ab lim nga xam ne nga séddale ko ñett ñu ko aajo wala ñeent wala lu ko ëpp wala ñaar waaye tamit dagan na nga jox ko kenn kese comme li ñu waxoon léegi mën nga teel koo joxe balaa waxtu wi nga xam ne ci la war a di jot masalan tey kori gi des na ñaari fan wala mu des benn fan nga teel koo joxe ngir teel a dimbali ki ko aajowoo loolu tamit lu baax la sax lenn ki saxaaba yi daanañ ko def te loolu ci lay gën a mën a jariñe ki nga xam ne moo ko war a jariñoo insha allah ndax ki war a aajowoo nu mu gën a mën a teel a jotee li muy dimbali koo ci lay gëne kon loolu tamit ñu bàyyi xel ne lu dagan la lu mën a ñàkk lu mën a nekk la insha allah tey bu dee koo xam ne dafa yor lu mel ne ab société am ñu koy liggéeyal wala mu yor ab liggéeyukaay am ñu koy liggéey si ñooñu tamit léeg-léeg dañuy faral di laaj ba xam ndax ñooñu dañ leen dañ da leen di joxeel asaka yi muurum koor wala déet waaye loolu ñooñu waroo leen a joxeel asaka muurum koor déedéet maanaam asaka yi muurum koor du war nit ki ci ñi nga xam ne ñu koy liggéeyal la ci palaasam wala ci société am wala ci isinam wala ci xeet yu mel noonu loolu tamit ñu bàyyi xel ne ndax dañu wax ne ñim la war ci ñoom mooy ñi nga xam ne seen dund dala war dala war ki sa bopp ak ki nga xam ne ab dundam yow la ko islaam gàll bu dee koo xam ne dafa judd ci waxtu wi nga xam ne génne ko daa jot kooku yow da ko ciy boole insha allah masalan tey nit ki bu doon daa wàññi ñim war a joxeel ñu nekk juróom far yàlla dogal am ku feeñaat ku juddu na ko ci limaale insha allah bu dee koo xam ne nag daane ci biiru waajuram génn gut kooku mën na ca bañ a bokk waaye nag sopp dañ mu boole ko ci du ci wàññi dara insha allah am na benn saxaabi boo xam ne daana ko faral di def mooy di génne waleen ñi nga xam ne dañoo nekk ci seen biiru waajur ci njabootam naka ñun ki nga xam ne daa faatu it ci biir kër gi ci waxtu ñu ko war a génnee kooku it dañ ko ci boole waale insha allah bu dee faatu gi dafa am ci waxtu yi nga xamee ne yaa ngi ko doon waaj a génn kooku it da nga ko ci limaale insha allah yéefar bi nga xam ne daa nekkoon ak ci kéefaram dugg ci islaam ci bis bi kooku it bu fekkee waxtu yu muy dugg si fekk na julleeguñ kooku it day war de dañ naan dañuy sopp rek maanaam mu joxe ko waaye nekkagul loo xam ne da koy war waaye su ko mënee joxe mooy gën ndax kooku daanaka ginnaaw dugg na ci islam atte yi day mujj tàmbali ñu war ko ko tàmmal di ko jox di di ko wax mu koy def bu dee ay doom yoo xam ne dem nañ ba am alal ay njaboot yu dem ba am seen alali bopp wala ay doom jigéen yu dem ba am ay borom kër ñooñu seeni borom kër ñoo leen koy génneel bu dee doomi góor yu am alal tamit ñoom ñooy génneel seen bopp loolu tamit ñu bàyyi ko ci xel bu baax bépp góor boo xam ne dafa am soxna yi doonte soxna si ñëwagul sa kër booy lim tamit na nga ko ci boolewaaleel xam ne ci ñi nga war a génneel ci la bokk ci asaka jooju nga bàyyi ko ci xel bu baax booy liggéenti yi nga xam ne moom la war a aajowoo te ñu bari di ko ittewoo ci ay colak ak yi nga xam ne moom lay soxla na nga gën a ittewoo asaka bi nga xam ne yàlla da koo waral ci yow nga war koo génne ci moom ñu bañ koo fàtte incha allah ba tey bu dee koo xam ne dafa dëkk fu mel ne Touba masalan waaye nekk ab tukkikat nekk ci lenn ci réew yi ku mel noonu bu asaka jotee ndax da koy joxe foofu wala da koy joxe fii loolu tamit masa nañu laaj imam Malik laaj mel noonu laaj ko ne ko waa nit ki bu fekkee dafa tukki ay waa këram nekk faneen naka la koy génne foofu itam ñaar yëpp mën naa nekk mën na ko joxe fa mu nekk moom xam na njabootam niñ toll mu xool ñaata lañ mu joxe ko xool fa mu nekk tamit ñen ñoo ko yeyoo mu jox leen ko bu ko neexee tamit mu woote joxe ndigal ci réew mi mu dëkk daal ne nañ ma génneel nangam joxeel ma ko ñaar yëpp mën naa nekk incha allah mën na ko joxe fa mu nekk wala mu joxe ndigal ci këram ñu daal ko koy joxeel daal ko koy ci wutu incha allah loolu tamit dara nekku ci nit ki nag bu ko yeexee ba julli ba noppi day daal nekk sax bàkkaar ma bàkkaar bi mooy maanaam yéexe jëfe ndigal loo xam ne dañ la dañ la daa wutaloon heure ne la heure bi nga ko war a joxe kon yéexe gi nekkul lu gën donte ne bu demee ba ginnaaw julli gi teewul da ngay jàpp dañ jàpp ne lu fay taxaw rek dina xaar nga war ko joxe ba léegi waaye nag sens bi mu waroon am moom dalay faat ak njariñ bi nga xam ne waroon na ko am dëgg-dëgg foofu ñu fàttali ko waat li ñu waxoon léegi te mooy génn ko ci alal ci xaalis mën naa nekk wala dañoo war a génn ko ci ñam ñi dund rek waxoon nañ ci léegi ne bu dee ci borom xam njëkk yi lu ëpp ci ñoom dañoo tënk woon ci ne xadis bi ñam la tuddoon kon ñam rek lañ ko war a joxe maanaam bu dee fii masalan dañuy xool rek lu ñuy dundee ñu natt ko ci ci ay kilo waaye am ñu wax ne manis naa xool ni nga xam ne maanaam moo tolloog moom ci xaalis ñi daa ko ci jox ndax loolu tamit day daal nekk loo xam ne lu ñu war a dëgëral la bu baax a baax ndax jubluwaayu islam mooy maanaam dimbale ki nga xam ne mooy ki koy jariñoo te ko xool ci jamono yi nga gis ni ki war a jariñoo maanaam asaka jooju lan la soxla dëgg-dëgg boo xoolee bu fekkante ne ñam wi dana ko soxla tamit alal ji tamit da koy soxla bu baax a baax bu ñu xoolee jubluwaayu islam te mooy mbégte mi daal di maasale ñëpp bis boobu kenn bañ a wuti dara loolu tamit dañuy gis ne day mën a dëggu bu baax a baax buñ ko génnee ci alal te ku ne xam na ne jamono bu nekk ak maanaam li fa li am jamono bu nekk ak ci àdduna toll boo xoolee jamono yi nga gis ne nit ñi li ñuy soxla bu dee nit ku nekk rek ci këram day soxla ay yëre yum sol ak ay waa këram soxla ay mbir yum jënd yoo xam ne dañ koy soxla ci bisu it yooyu nag kon alal ji da koy man bu baax kon moo tax li am solo mooy ñu tënku ci li xadis bi tënkoon ci ni muy toll waaye manis naa xool xiima bi ci lu muy tollool ci xaalis ñu daa ko ci mën a jox masalan jamono bi fu mu mën a nekk rek te réew yu bari ci àdduna si moom la ñuy def mooy di xool maanaam nan lay tollool ci xaalis bi ñu yor masalan tey dëkk bu nekk ñu xool li ñu dunde lan la bu ñu xoolee muy pepp wala ceeb wala lu mën a doon ñu xool ñaari kilo liibar ñaata lay tollool ci xaalis bi ñu yor loolu dana yomb a xam bu baax a baax tey masalan bu ñëwee ceeb lañ mu ëpp lu ñu dunde fii ñu xool ñaari kilo liibar ñaata la ci xaalis rek lay jar bu defee nga jàpp ne loolee moo war bépp jëm nga calcule ko nag xool ñaata nit nga ko war a joxeel nga joxe lu toll noonu misaal tey bu fekkante ne benn kilo ceeb day jar juróom benn fukk ñaari kilo nekk téeméer ak ñaar fukk xaaj bi nekk fanweer mu nekk sept cent cinquante nga jàppale kon sept cent cinquante ci misaal te loolu nag mën naa sotti ko kenn ni li ñuy dugal di sotti ko sept cent cinquante pour benn jëmm bu nekk bu ko defee loolu bu ci ku ki ko war a aajowoo bu ci jotee dana nekk lu koy dimbale loo xam ne lépp lum soxla ci war ko aajowoo ci bis boobu moom loolu dana ko ci mën a dimbali ko bu baax a baax kon ñu bàyyi xel ne loolu tamit lu mën a nekk la insha Allah taala loolu sax moo tax ba day dagan kon sax nit ki mën na koo joxe ci joxewukaay yi nga xam ne moom lañu jëfandikoo léegi te mooy léegi boo xoolee dañuy joxe ci wàllu jaarale ko ci ni ñuy yónnee àll léegi defe na ay xeer yu bari la yoo xam ne nit ki mën ngaa toog fi nga toog nga yónnee ko li nga ko war a jox lépp defe na lu ëpp ci adduna si léegi day danañ lay jox alal te fekk du ngeen gisante wala du ngeen bokk fu ngeen dawee kon ma gis na ko joxe ci anam boobu ba tey nga xool ñaata la rek nga yónnee ko ci fi nga ko war a yónnee wala ci ñi nga ko war a yónnee jaare ko ci jumtukaay yi nga xam ne moom lañ ko war a jaare li am solo mooy rek ñu sàmmanteeg ñaar yi pour ndax ngir mbirum diine la mooy sàmmanteeg ni muy toll mooy saa bi ba ñu soppiku te mooy miqdaar bi waaye dañuy xool xiima bi ni muy toll ci alal sàmmanteeg heure bi ñu ko war a génnee te mooy sa ay saa yoo xamee ne jamono yi kor yi des na benn fan wala ñaar wala bala ñoo julli ci ñaar yi moom du soppi waaye jëmmi nga xool li muy gën a mën a jariñu jullit ñi ñu génne ko ci loolee loolu dara nekk ci insha allahu taala kon loolu tamit ñu bàyyi ko ci xel baax kon nag sàmmonteeg ni muy toll sàmmonteeg heure bi sàmmonteeg yéene ji li gi des nag insha allahu taala ñu mën koo joxe ci anam gi nga xam ne noonu la ko islam santaane kon bokk yi li ñu tënke ci buntu boobu mooy zakatul fitri bi ñu waxoon léegi nañ jàpp ne kon ab saraxe la boo xam ne yéen saa sam daf koo waral ci jullit ñëpp ñu war koo joxe bépp jullit foofu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax léeg-léeg nga gis lu ëpp ci jullit ñi dañuy féetewoo di waxtaane attey islaam yi waaye ñoom duñ ko jëfe ci seen jëm bopp li ma bëgg a wax foofu mooy asaka yi masalan fi ne bari na ñoo xam dañ koy jotale di ko wax waaye xamuñu ñoom ci lañ bokk ñu ko war a joxe lañ bokk ndax waxoon naa léegi ne buñ xoolantee jullit ñi ñu xool seen lim ñëpp ñi ko war a joxe ñu ëpp ñi ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox kon ñi ci génn bariwut kon ñëpp ci lañ bokk kon bu ñu bépp jullit boo xam ne am na lu ëpp li mu war a dundee loolu ñi ci génn bariwut kon loolu nag na ko ñëpp bàyyi xel bu baax moo xam ñi koy jottali islaam di ko waxtaane moo xam ñiy jàngale moo xam ñiy jiite moo xam ñi nga xam ne nii wàccuwaay bu ñu mën a yor ci islaam ñu xam ne loolu ci ñoom la tàmbalee bu ko defee daal rogalaat ñëw ci nit ñëpp insha allah ñu bàyyi ko xel ba nga xam ne dana yaatu ba nga xam ne li ci islam bëgg te mooy mbégte mi ak am-am bi daj ñëpp mu mën a dëggu insha allah taala loolu ñu bàyyi ko xel biñ ci tëjee mooy julli gi muy julli gi ayit ginnaaw bu ñu waxee asaka boobu nga xam ne mooy jiitu waxoon nañ aay bi nga xam ne mooy tegtal bi wa zakara sma rabbihi fasalla julli gi nag balay balay koy ab julli di xalaat wala mu ci waajal na bàyyi xel ne li ci jiitu mooy asaka bi ñu wax léegi nga taxaw ci banot te mooy joxe li nga war a joxe kon loolu ne ko ñëpp waajal te bàyyi ko xel bépp weeru koor woo fekkee ba mu des benn fan wala ñaari fan nga fexe ba njëkk koo joxe mu bokk ci yi ngi njëkk def sax nga gën koo farataal sax wàccaayu bis bison it loolu ñu bàyyi ko xel bu baax soo ko joxee ba noppi nag nga doog a ñëw ci fasalla ndax qad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fasalla julli gi doog a ñëw waaye lu ëpp ci nit ñi dañuy ittiwoo julli gi ittiwoo wàccaay yi ngay waajal pour julli te fekk asaka bii maanaam sax mataliwoo ko wala defoo ko ci anam gi nga xam ne moom lañ ko war a joxe kon nag ñu bàyyi ci xel bu baax a baax xam ne ñu génne ko dafa itteel islam bu baax biñ ko defoon benn at ñaari at ñëpp di ko joxe danañ gis ne société islam yi dana mujj dund laneen lu wuuteeg fi nga xam ne fi la toll dana gën a yokk ci wàll yëpp waxuma la sax waaye ñeneen danañ ñëw fekk ci islam ndax dañuy xam ne islam lépp dimbalante la waaye lépp rafetal la lépp it day bëgg ñëpp maasa dund li ñu tuddee alxayaata tayiba loolu kon jullit ñi bàyyi ko xel bu baax warteef boobu ku ci nekk bàyyi ko xel jamono yi nekk nii di ki fàttaliku ak yéen man naa wax de daanaka waxtu wi jot na ndax am na ñu ëpp ci mag ñu baax ñi ñu ko daan teel a joxe bu desee ñaari fan ak bu desee benn fan te loolu dagan la te loolu day dimbale comme li ma waxoon léegi ñi nga xam ne ñoo ko aajowoo ñu teel a waajal li ñu war a waajale ci bisu iid bi balaa ñëw bu fekkee da ngaa bàyyi ba ci bis bi mën na am ki nga xam ne moom moo ko waroon a dimbali ko fekk na ak jaaxle mu jaaxle ko ba noppi fekk na bu doon kuy yelwaan mu yelwaan ba noppi fekk na bu doon kuy laaj mu laaj ba noppi moo tax kon teel cee taxaw day nekk farata julli ñëpp ñu bàyyi ko xel bu baax ba nga xam ne sa warteef boobu day jàll bi ki des mooy julli gi julli gi it moom att bi sunna la kon bii moo gën a joxe bii moo gën a nekk farata moom lañu war a gën a itti woo ba noppi sunna la boo xam ne comme ni nga xamee lim bi ñaar rakka lay nekk yoo xam ne buñ ciy tari dañ ci béral li ñuy tari julli ñi ngi ko tàmbali def ci atum ñaar ci gàddaay gi te mooy at bi nga xam ne ci lañ njëkk a def koor rek at bi njëkk a woore ci lañ njëkk a def ayit yéen saa sallam dafa ñëw madina bi mu ñëwee fekk leen ñuy ñuy ñuy ayit ñu am ñaari bis yoo xam ne dañ koy feetoo mu laaj leen ñu ne leen bis yi de depuis bu yàgg dañ ko daan def bisu fo mu ne leen suñu borom dana leen jox na leen yeneen ñaari bis yoo xam ne mooy gën ñaari bis yi muy yowmul adha ak yowmul fitr wala idul fitr loolu ci atum ñaar ci gàddaay gi te mooy bi ñu tàmbalee woor ci la ayit tàmbali kon mi sax ne iid bi njëkk ci islam mooy ci ñaareelu at bi ci gàddaay gi kon julli gi julli gu am solo la moom tamit boo xam ne jullit bi war na ko waajal bu baax ak jaamu yàlla la moom kon ñaar yi ñu doon wax léegi benn bi jaamu yàlla la ci wàllu joxe te mooy zakat bi bi gi des jaamu yàlla la ci julli julli googu nag naafila la boo xam ne maanaam ni naafila yépp mel noonu lañ koy jullee suñ ci tar dañ koy biral ñaar rakka lay nekk yoo xam ne rakka bu ci nekk day am fatiha am aw saar li ci gën a ràññu ko rek mooy kabar yi kabar yi nga xam ne da koy am loolu la wuuteeg yeneen rakka yi des rakka bu njëkk bi di am juróom-ñaari kabar yoo xam ne dañ ciy boole kabar bi nga armale rakkaam ñaar bi am juróom-benni kabar yoo xam ne boo ci boolee kabar bi nga xam ne moom nga jóge woon ci tënk noonu la julli gi di mel boo xam ne du am liqaam du am nodd kabar yooyu tamit ci mazhab bi nga xam ne mooy almazhabul maliki armal bi rek la ñuy sopp wala la ñuy rafetlu nga yëkkati sa loxo yi des mën ngaa wax allahu akbar bañ a yëkkati sa loxo insha allah julli gi te may sa ko fay tey nit ki bu ñëwoon fekk imaam nekk ci taaya julli gi it imaam bu sëlmalee mën nga gaaw jug daal di fay julli gi incha allah def ko ñaar raka comme ni ko imaam jullee woon naka noonu boo fekkee mu am benn it mën nga eggale benn bi boo noppee nga fay bi ci des incha allah kabari tamit noonu kabari léeg-léeg nit ki mën naa ñëw fekk imaam di tari fekk kabari weesu boo ñëwee tamit mën ngaa gaaw kabbar say kabbar ni ngi toll gaaw bu fekkee imaam rukkoo agul nga dab ko dara nekku ci fekkee kabbar yi da nga koo defut nag ci mazhab almaliki yi kabbar yooyu boo ko defut bàyyi ko ba rukkoo ba nag nga xam ne weesu nag mënatu koo dabaatal da nga koy sujootal xabla salaam dañ koy jàppe ko wàññi ab sunna loolu lenn la loo xam ne aju la ci jullik ayit ñu bàyyi ko xel bu baax insha allah taala léegi doli ko atam mooy bépp jaamu yàlla boo xam ne suñ borom dañu koo sant am na ay teggin yoo xam ne day am solo lool ñu jaare ko ci bi ñu koy def bokk na ci teggin yi bisu it ak julli gi mooy li ci ëpp solo mooy maanaam nit ki bu xëyee mu sangu waajal ko bu ñu waxee sangu gi wàccaay wi ci yére ci la bokk ak wàccaay wi ci defar yaramam bu baax a baax loolu moom dañ koy roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax moom comme ni ko saxaaba yi nettalee dafa wutoon sax mbubb moo xam ne da koo jagleel pour ayit ak mbubb moo xam ne da koo jagleel insha allahu taala pour ajjuma kon julli ñu war ko roy ci loolu bu baax moo tax wàccaay wi ci wàllu yére yoo xam ne day sell te laab moom bokk na ci teg gi ni waajal bisu ayit ñu bàyyi ko ci xel bu baax julli bu bu xëyee mu sangu kenn ni muy sangoo janaba rek sangu boobu lay sangu insha allah pour waajal julli gi bi ngi topp ci ba tey sopp nañ ba tey ci teggin yi mooy bokk na ci bis ba bu ñëwee jullit ñëpp génn ba ci sax ndaw ñi xale yi ak jigéen ñi sax ñëpp ñu génn fekk ji julli googu incha allah bokk na ci bu dee kori la nit ki bu xëyee tamit mu teel a dog balaa dem di julli ci comme ni ko Anas nettile radiyallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bisu kori bu xëyee day mos dara balaa dem daan ne day def ñetti tàndarma wala juróom wala benn maanaam da ko daan lekk mu nekk tool loolu ba nga xam wax ne li ñu ci jublu mooy maanaam ngir nga gaaw jëfee ndigalul yàlla ginnaaw dañ laa woor la woon buñ la dogloo rek nga daal di dog ngir jëfe ndigalu suñu borom waaye tamit jëfe ndigalu yàlla ci maanaam bañ a woor bisu it moo tax ñu sopp boo xëyee rek nga daal di gaaw mos dara ci bis bi bala ngaa julli ji insha allah am na ay kàbbar yoo xam ne it kàbbar yu baax la ci bisu it nit ki bu xëyee mu koy def di ko faral di def lu bare bari kàbbar yooyu téere yu bari indi nañ ko am na ci ay tëggin yu bari waaye bokk na ci li ci gën a fees allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd nit ki di ko wax ci bisu ayit moo xam kori la wala tabes bokk na ci teggin yi nit ki bis boobu ñëwee nit ki bég ci bu baax a baax bég na ci nekkul bis boo xam ne nit ki da ciy feeñal mer mu am wala da ko ci wala da ciy merloo kenn déedéet moo tax gis ngeen xutba bi nga xam ne siiw na lool xutba ak sëñ bi ñu ciy jàng yi ca tàmbali ba gis nga yawma tawsiixi wa yawma tawsiixati wa tafriix tafriix bégloo kon bis boobu nit ki da ci bégle waaye da ci feeñal mbégteem bu baax a baax loolu ci tegg ñi la bokk waaye bokk la ci it nit ñi ndokkeelante seen biir bis boobu jotee julli ñi buñ dajee ku nekk ndokkeel sa morom loolu ci tegg ni bis bi la bokk saxaaba yi dañ daan def ku dajeeg sa moroom ne ko tuqabbala minna wa mink yàlla nañu yàlla nangul man ak yow bu def ay julli buñ dajee ci bis boobu yi day baax lool ku nekk ndokkeel sa moroom ñaanal sa moroom loolu ci tegg ni bis bi la bokk naka na tamit sax na bokk na ci nit ki wutale yoon yi muy jaar ndax jaabir ibnu abdillah nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu bisu iit masaan ñëw day wutale yoon yi mooy bu jaaree ci mbedd bi bu ñëwaat day jaar ca mbedd mi biñ ci jeexale mooy bokk na ci tëg gi bis yi li ci ëpp solo mooy nit ki bu ñëwee mu sant suñu borom subhaanahu wa taala sant ko ci bu baax a baax ci xolam sant ko ci làmmiñam sant ko ci jëfam xam ne yàlla moo la gindi ci islaam nga sant ko ci loolu sant ko it ci gindi gim la gindi ci ak ngëm yàlla sant ko ci bàyyi gim la bàyyi nga fekke bisu ayit nga fexe ba xër bu baax def lépp loo man ci jaayante sa borom ci bisu it bu jàllee wala bisu ko weeru koor bu jàllee nga fexe ba sa dund li ci des gën a rafet gën a baax gën a sell mar suñu borom ne wala tukmilul idda wali tukabbiru allaha ala ma hadaakum wa laallakum tashkurun loolu insha allah taala yàlla nañ suñu borom defal xam naa loolu la ñuy tënkee waxtaan wi insha allah ñaan suñu borom mu jëriñ ñu ci ñun ñëpp insha allah te nangu lépp jaamu yàlla boo xam ne def nañ ko ci bisu weeru koor bi lépp nangu bépp azaka boo xam ne joxe nañ ko waaye tamit faj aajo yi jullit ñëpp te sàmm ñëpp te aar ñëpp ñu ngi leen ndokkeelaat bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu